asune mwane bobo wane ni mumane dukuchini akina sama shoko bane jox naa la sama xol shoko bane

dinaa la jaawale yow Rimka xool ma de man ngay waxal wala li ma la demaske moo tax yow nga doxaan ma ñuy génn ñun ñaar nga ne yow xamoo ma kon yow danga nga infidèle. eh soxna si kóol eh, du tooñ bu ko tooñ de man dama la xam mu lay soog a gis nga ni jadd sama kanam naan doxaanante ban intérêt laa ci am mais yow fenkat nga. <laughs> décidément vous êtes tous pareils vous les hommes.

supprimer sama numéro te bul ma woowaati Il faut yem ak bébé. oui. je voulais te demander une chose. Mmh. entre Nanita et Metzo seen couple bi nous mu mel ni ça ça me fait très très mal même. il est temps que nga dem nga waxtaan ak

sa mbindaa nan nga mën a nekkee ak moom xaw ma dara sax nekk ak moom garaawul mën ngeen ko def feneen mais sa biir néegu jabar la moindre nga suturaal sax sa jabar. Rosalie. Afro. ah yow sax ça fini ton boulot xaalis. mais Rosalie est-ce que xam nga ni dama kontaan ci yow façon jigéen bu nekk mës naa koo gis jigéen bu féroce bu nekk mës naa koo gis mais ku mel ne yow mësuma daje gi non sa xeetu banditisme sa xeetu féroce daf ma jéggi dara. man la Rosalie de aw lu may tiit aw lu may ragal su ma may lu may tiit wala lu may ragal bàyyi lépp mu sedd sa se voit que ni euh, guerrière nga quoi gaynde nga man ñu mel ne yow laay wër xam nga lu ñuy def dangay ñëw ma jël la def la lu la nit mësta def yóbbu la fu la nit mësta yóbbu wax loolu la nit mësta wax loolu du la neex ah. dama lay wax xale yi di wax léegi demal nga toog. <laughs> non lii laa bëgg kii laay wër.

lay wax ni Safia Safia mënoo ma abandonné ci situation yi ma toll Nanita dem na yow boo demee bàyyi ma fii man dong yéen lan ngeen bëgg da ngeen bëgg a rey wala lan la ça va, je vais venir toi. Ok, Sophia. Ma Est-ce que mën naa la ta tête hors de chez toi. avec plaisir. yow fan nga nekk nii. maa un restaurant Sams. s'il te plaît xoolal pour bouger je ngi di dans 5 minutes s'il te plaît Sophia xaaral ma foofu maa ngi nii di d'accord à tout à l'heure. tey man su ma demee tiim Namita di waxtaan ak moom lan laa koy expliqué xaw ma am naa sax man kersa boobu vraiment il est temps nag ba ma bàyyi ko seetaan ko nii tuuti ba mu xam lan la Namita doon daj ci moom bu toogee ay jours yoo xamante ne bii ne gisu ko mu métti trop ci moom noo dina dem ci moom jégalu ko. dafa juum rek te nit nit rek la mën a doon. mais yéen kan mo len wax ne ñoom ñaar sekk nañ dara hmm? seytaane rek mo ñow. chérie je te le demande pour notre amour fais une chose pour qu'il se réconcilie xam naa médecin bu baax depuis temps boy ba lég ne la moom bëgg jigéenam bi dañ mukk ci mo. mais nak dina ko def pour yow t'inquiète dina ko dem waxtaan ak moom d'accord kii fu mu toll tey <laughs> man dama daan teg loxo nii sax mooy dóor nii par des fois mais tey dafa calme de. daa sonn. sonn sonnagul kii bu génnee àddat laa koy def. <laughs> sama bébé aadama ngir bi. <laughs> mukk ci kër àdduna. caane caane xam naa ne yaakaaral woon daje bi dina am sama diggante ak yow. tey nag loolu la yàlla doon xaar waxoon naa la maag yow bu ñu bés bu ñu jàkkaarloo dina métti te dina yàgg du gis nga secteur bi ñu taxaw ni maag yow amul kenn ku la fi mën a wàll da doon jaay ne bandi nga di jaay ne jàblees nga wamee cri yuuxul ana tapet yi nga doon ma doon boole ñoo dag ma doon jéem a tànce waxoon naa la bés bu ñu jàkkaarloo maag yow dinaa la def loo nit mës tey nag lépp loo xamante ne mësoon nga koo lekk di nga

va demander à ton ami Dev. Bye bye. Bye bye. Non. Non. Ma chérie, moi, il m'a ma toll ci yow yaakaar naa ni so gisee ma andi la fi tay pour ñu tok jakarlo waxtan de bouche à l'oreille ma bëgg nga am courage nak xol ma ci biir bët wax ma réellement ndax bëgg nga ma wala da nga bëgg def comme goru tay ku ci ak sa jabar rek lang ci benn xale bu jigéen takk ko def ko jabaru faj mer Sofia dama bëgg nga xam ne man weesu naa fu may jëlee nit di koy utiliser pour faj mer non dépassé naa loolu dama bëgg nga xam ne je t'aime et je sérieux sama dengan dia banyak tu dara darah ya. di pas kaya li ma traversé yëpp sama diggante ak nanita souffrance bu mata teg di dugaat ci benen mariage ak benen jigéen boo xam ne mako ko xawma mooy kan non nah, nah, nah. jamono ji sofia lépp lu ngay dugaat day leer dama bëgg nga xam leen Safia yow yaa jigéen boo xam ne yow laa xool nga doy ma ma xool say jëf mu doy ma te lenn rek a ma ñor jamono ji si yow tu wii ndaa bu boobaa ma mën a xam nag ana nan laay continuer

maa ngi xool ni ngay dundee